التواب الشافعي الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yéen mbokk groupe académiyatu tasawuf maa ngi leen nuyu di leen ziyaara ci ajuma ji di am mbégte ak kontaante ci ànd ak yéen ci sunu darse bi ñuy def ajuma bu ne di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu may ñu dégg ak jëfe ndax xam-xam bu ñuy jàngale bu ne rek ñaar yooyu da ci am solo lool dégg ak jëfe rawatina nag lii nga xam ne mooy ilmu tajwid daanaka jëfe ji sax wala tatbiq bi moo ci ëpp fuuf xam-xam bi waaw xam-xam bi wasila la rek wasila la waaye xaaye bi dëgg mooy tatbiq bi nit ki mën a jàng alquran jàng bu mucc ayib jàng boo xam ni jàng bu set wala tamit nit ki mën a làkk luxal arabiya làkk boo xam ni du am benn yàq loolu rek mooy sunu jubluwaay ndax nag maxaarij al xuruf ak sifaatul xuruf loolu nekku rek mbiru tajwid waaye képp ku bëgg wax lugal arabiya waxin wu rafet waxin woo xam ni kat kenn du am benn seetlu ci xaraf ya nga ya nga ya nga tudd wala képp koo xam da ngaa bëgg xutba wala képp kuy ilqaa dara mu nekk ci lugal arabiya dafay farata ci yow nga xam lii di maxaarijul xuruf sunu dars bee weesu nag ñi ngi nekkoon ci xutbatul muallif maanaam ابن الجزري رحمه الله نيغا خامني نون لا اوبي تيري بي دون سي ليرال يمون نرا فرام فاتي يمون نرا اندي سي تيري بي موي مخارج الحروف والصفات احكام التجويد واجي سي اندو احكام التجويد ولا مسائل التجويد دمني كي الترقيق والتفخيم دمني كي احكام الميم الساكنه احكام النون الساكنه والتنوين الحدودية وقف والابتداء باب آه، موصول ومقطوع آه، باب خمسة الوصل أنا ميدا إن شاء الله دنا فرن دنا كفرن فاتي كتير بيدف كو أي بون بون بون موخ لغا خامي موتي علي تينك نيو نيو تي باب مخارج الحروف قال الناظم رحمه الله مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر للجوف أليف وأختاها وهي حروف مد للهوى تنتهي ثم لأقصى الحلق همز الهاء ومن وسطه فعين حاء بنت بيمو بنت مخارج الحروف بني وخ مخارج جمع ولا مفرد بموي لن موي مخرج مخرج بنكو بغي وقت ولا موي جنو كاي آه، جنو واي ولا جنو كاي موي مخرج waaye li mu ci jublu moom ibnul jazari fii mooy génnuwaayu xaraf bi maanaam xaraf ba muy génne wala fa muy feeñe ci sawtu bi nga xamee ni xarfu ba ma koy indi sawtu ba ñuy dégg ci xarfu boobu fan feeñu kaayam kon maanaam buñ nee xarfu xarfu boo gis sawtu la waaye du sawtu boo boo xaw xarfu boo dégg rek sawtu la waaye du sawtu boo dégg xarfu la mën ngaa dégg sawt fekk du xarf eh, bàyyu may aswaat yi nga xam moom la ñuy dégg du xarf boo demee ci ndox bu yëngatu ñu dégg sawtu du du du du kii du xarf ngelaw li bu ëppee ñu am yu ñu dégg du xarf ki nga xam ni miniser bi nekk ci atelier am di di fëgg di yor la muy la muy daaj di daaj dara ñuy dégg loolu sawt la waaye du xarf da ala kulli xaal sawtu moom mën nañ ko firi lépp loo xam ni ab buru wi la nit ki di ko dégg ci noppi loolu mooy sawtu léegi nag xaraf xarf yi naka lay sosoo xaraf naka lay sosoo loolu dafay dafay baax loolu ñu xam ko xam xarfu naka lay sosoo suñu borom subhanahu wa taala dafa am lu mu def ci doomu aadama yàlla ni mu binde doom aadama leppum rek kéman la leppum kéman la ñun nak ñoo dañ dul sétantal ci sunu bop moo tax alquran ni wa fii anfusikum afala tubsiru nit lenn lu mu xol ci bopam rek gis ni kéman kéman la bam mu jeex tàkk dafa am luñ naan al wataraani sawtiyan wala al awtaaru sawtiyan ñu di ko tudde al ahbaalu sawtiyan dafa am lu melni ñaari goomu alastik maanaam am na lu ñu daan tudde mbaq mbaq ñu ngi ko daan defee lu mel ne benn élastique euh, yu mel noonu lu mel ne ñaari guum yooyu ñuy defaree mbaq wala ñaari alastic yooyu dafa am ci doomu aadama ma nga nekk nag ca ca fa ah, mujj ca put ga foofu la nekk fa gën a sori ca put foofu la nekk nga xam ni dafay tëju di ëppeeku bu tëjoo euh, tëju googu mu def am na am na am na xarfu bu ci juddoo bu ëbbeekoo am na xarfu bu ci juddoo bu yëngatoo am na xarfu bu ci juddoo kon boo boo ñaari góomu élastique yooyu ku indi ñaari góomu élastique boo leen dendalee dana am benn tak tak doo dégg waaye boo bu fekkente ne rek leen a sorele ngelaw jaar seen diggante su fekkente ne élastique yu yu yu rëy la dana am yëngatu boo dégg waaye boo ko tëjee tamit ngelaw li bu ñëwee di forcer noonu muy jéema a forcer di dugg dana am sawtu boo dégg kon sawtu foofu lay jóge léegi bu ñëwee nag bu dugg ci xalq bi mooy ci put gi wala ci gémmiñ gi bu boobaa nag fa fa mu fa mu fa nga xam ni fa la rek foofa la ñuy tuddee foofu rek mooy maxraju xarfu nangam fa mu teere foofu dafa am nag xarfu bu fay juddu bu fekkente ne. nekk xarfu bu sukun xarfu bu dañuy gis ni eh, alwataraani sawtiyaan dañuy dañuy tëju foofu dañuy tuddee al awtaara sawti dañuy tëju moo tax ñu lay wax xarfu saakin boo ko bëggee tudd foofu nga indi xarfu mutaxarrik maanaam tey bu fekkente ne eh, baa dañ ko sukkoon ma bëgg a xam maxaraju baa ah il faut que indi xarfu bu ko jiitu boo xam mutaxarrik la ngir ma mën a tudd baa xarfu saakin kenn mënu cee tàmbalee. ndax lan sa awtaaru sawti yi dafa tëju léegi dafa tëju loolu loo ko mën a ubbi léegi kon foog nga indi xarfu mutaharrik ngir nga ubbi eh, lii di al awtaaru sawtiya tëj ko nag tëj googu nga koy foofu lay xarfu saakin bi génn nga wax aad aad aad kon damay yëg ni baakat ñu ngi génnee ci shafatay incha allah loolu dana gën a leer su fekkente ne xarfu bi mu eh, eh, mutaharrik la. benn day nekk fata dafay fata walla mu kasra walla mu damm euh, bu fekkente ne dafa fata dañuy gis ni ñaari ñaam yi dafay ëbbeeku a ba su fekkente ne kasra xarfu bi dañ dañ koo masque masque suuf dañuy gis ni kat euh, ñaam bi ci suuf dafay dafay jëm ci suuf kii i dafa jëm ci suuf bu fekkee dafa damm nag dañuy gis ni gémmiñ gi dafa mel lu ko lu tëju waaw ah, day mel ne foofu boo xoolee moo xam moo nga xam ni nit ki da ngay gis tuñam yi da ngay gis tuñ yi di junj ni kët xarfu dama lay jàng loolu ci gàttal eh, eh, nii lay lay lay xuruf yi di amee léegi nag ñu ñëw ci Ibnul Jazari li mu wax mu ni maxaarijul xurufi sabata achar ala alladi bala maa yegg ci mag xaarjul fat léegi leeral na lii euh, maanaam bu fekkee dafa tëju awtaar sawte yi wala bu dafa ubbeeku bu fekkee dafa yëngatu dafa yëngatu nag xarfu génne mooy lu mel ne alif lu mel ne waaw ak yaa wala wala xuruful liin loolu maanaam awtaar sawte yi du tëju du du tëju day ubbeeku waaye nag day mel lu def yëngatu noonu muy yëngatoo nag loolu mooy tax xuruf yooyu kenn. léegi dañuy ñëw ci téere bi. waaw léegi Ibnul Jazari nii nag sa maxaarijul xurufi sabaata achar mu ne nag maxaarij yooyu fukk ak juróom-ñaari maxraj la kon moom dafa tànn gannaaw gi nga xamee ni ulama ul tànn nañ waaw ku ne eh, ijtihaad am loo tànn mu tànn ca ba nga xamee ni kat jàpp na ni boobu moo ko gën a doy. te mooy bi xalil ibnu ahmad alfarahidi tànn ndax xalil dafa ni maxaarij yi fukk ak juróom-ñaari maxraj dañuy wax sax xalil moom mooy ki njëkk a njëkk a kashfu lii di maxaarij moom moo mooy mooy ki njëkk wax ci wàllu maxaarij moo tax dañuy wax awalu man zaqa al xuruf al xalil ibnu ahmad siima woy nag gannaaw ga la ñëw bi mu ñëwee nag mu gën ko yaatal indi def ko ci téeréem bi defar def ko ab fas la xaas boo xam ne li ciy wax mooy lii di al maxaarij wa sifaat waaye sifa way moom dafa gis ni maxaarij yi fukk ak juróom benn maxraj la ndax maxraj bu njëkk bi di al jawf da ko tasaare ci diggante hamza ndax dafa ni hamza moog alif ñoo bokk fi ñuy génn lii di euh, al waaw al waawul maddiya mook alwaawul a ñoo bokk fi ñu génne lii di alyaa al maddiya mook alyaa al mutaharrika ñoo bokk fi ñu génne euh, même imaamu bi loolu euh, siiba wéyhi tànn moom loolu la tànn alfarra nag moom dafa gis ni maxaarij ji fukk ak fukk ak ñeent lañ euh, maxaraj bu njëkk bi aljawf comme ni Ibnul Jazari comme ni siiba wéyhi def la def léegi nag mu jël laam ak raa ak nuun boole leen mu nekk benn maxraj waaw laam raa nuun moom nee na ñett yi yëpp donte ni ñu yu jege lañ nag waaw même ñi nga xam ni dañ leen a tàqale da ngay gis ni tàqale bu sew la waaye daanaka xaw nañoo nekk benn léegi nag moom alfarra gis ni kon fukk ak ñeenti maxraj la ala kulli xaal loolu la ibnul jazari di jublu ci ala alladi yaxtaaruhu man ixtabar mu ne ala lazi ci li nga xamee ni yaxtaaruhu dana ko tànn man ki càmbar mbir xarfu natt ko xool génnukaayam kooku euh, loolu la tànn mu ni lil jaw fi ñeel na maxraj bii di maxrajul jaw alifun wa uxtaaha maxrajul jawf la fay génne mooy alif ak waaw ak yaa almaddiya waa tax mu ni waxii ñetti xarfu yii de xuruufu maddin ñooy xuruufu madd ñoom la ñoo xuruufu madd ni ñuy xamee ni xuruufu madd la mooy toujours fatxa da koy jiitu fatxa bu jiitee alif ah fatxa bu bu alif boo ko fekkente ne fatxa moo ko jiitu waaw bu fekkee damm moo ko jiitu yaa bu fekkee kasra moo ko jiitu boobu lañ leen di soog a wax xuruuful ak madd waaye bu fekkente ne yaa gi dañ cee def xaraka ya wala yi bu boobaa nag nekkatul حرف مد بو فكي واو دنجي ديف حركة و ولوي با حرف متحرك لا واي نيكوت حرف ساكن ام لو ني حرف لين حرف لين موي يا ولا واو بو فكنتني فتحة موكو جيتو واو لاكو ورونا جيتو موي ضمة غير مو نيك مد واي نك في ني فك ني فتحة موكو جيتو مو نيك لين نكا نونو يا بوكو فتحة جيتو لولو دا لا نييو تامت سي صفات الحرف ان شاء الله كون دال آه، نيت يوي نيو حروف المد di génne ci maxrajul jawf moo tax mu ni xuruufu maddin lil hawa tantahi maanaam dañuy wax ni xarfu ni ngay xamee maxrajam mooy boo tuddee xarfu fa sa sawtu bi jeexee rek foofu mooy maxraj mun na nag xuruuf yi sawtu ba fa muy jeexe mooy fa ngelaw la jeexe rek moo tax xuruuful madd da ngay madd ba mu neex la a kitaabi moo tax buñ demee ci babul euh, mbuduut da ngay gis ni dañ koy am na yoo xam ni dañ koy màdd xarakatain arba xarakat sitta xarakat ala kulli xaal ak tafasil ci aju waaye nag loolu ci ci xuruful màdd rek la am waaye lu mel ne tey yeneen xarf yi tey ji mënoo wax aji a boo boo taxawee rek da ngay gis ni maxraj bi génn waaye yii di xuruful madd moom fa nga daal foofu la maxraj bay am mu ni summa li aqsa alxalqi hamzun haau wa min wasatihi fa aynun haau léegi mu ñëw tamit ci li nga xam ni mooy maxaarijul xalq wax nañ ko sànq li nga xam ni mooy alxalq gi tux ñetti maxraj moo fay génne mooy ñetti maxraj la am aqsa alxalq wasta alxalq adna alxalq moom la ibnul jazari tudd fii su fekkente ne ci aqsa alxalq la mooy ca fa gën a sori ci put gi buñ ne fa gën a sori nag bi itibaaril fam fi gën a jege mooy gémmiñ wala fi gën a jege mooy achafatayni bi itibaari chafatayni moo tax moom la mujj a tudd maxraji chafatayni moom lay mujj tudd ndax lan moo gën a jege bi gën a sori mooy fan mooy aljawf wala alxalq kon nag fa gën a sori ci put gi ñaari xar fa fay génne mooy hamzun ak ha hamzun ak waaw xarful hamza bëri na ñoo xam dañ ciy def yàq ñu ci bëri duñ ko jàng jàngin bu wir ndax hamza yenn saa yi dafay jafe tudd rawatina nag su fekkente ne dafa nekk ci digg baat wa ida wa ida wa ida ida shamsu kuwirat wa idan wa boo deful nànk rek da jàng wa wa ida koy tashil da koy tashil te foofu waroo koo tashil innal abraara ah dañ ñeex lu tax ñu tëddoo ko hamzatul qata ndax dafa mel ne dafa lay dog dafay dog ci xarfu ba ko jiitu ngir nga jox ko àqam jàng ko bu wér te nag hamza dafa am ñaari sifa yoo xam ni mooy tax mu am doole mooy li ñu tuddee sifatul ah, shidda ak sifatul jahr xarfu yi li leen di tàqale xam nga hamza ak ha ñoo bokk benn génnukaay waaye lu tax ñu leen tuddee wuute mooy ma ngay dellu ca sifaat ya kon sifaat yi dafa bokk ci njëriñam mooy day taqale xarfu yi gannaaw bi nga na ne ñoo bokk maxraj ñoo bokk génnukaay waaw kon buñ duggee ci sifaar yi loolu dana leer haa tamit am na ñu ci def yàq maanaam mooy dafa nekk xarfu bu daif bu néew doole moo tax boo ci euh, boo ci bu baax rek boo moytuwul doo ko jàng mu wér moo tax da nga naan ihdina ihdina waaye boo ihdina siraat ihdina maanaam daanaka lekk nga xarfu bi moo tax daan ihdina fa muy génn dafa sori ba pare xarfu bi néew doole moo tax nag boo tàyyeelee boo moytuwul doo ko jàng-jàngin bu wér kon da nga naan ihdina alhamdu inna aataynaaka i wa min wasatihi fa aynun xaa'u nee ci wasatal xalq mooy digg put gi mooy di digg put gi yan xarfa ba génne mooy ayn ak xaa ayn ak xaa kon ñoo bokk génnukaay waaye fu ñu wutee ma ngi dugg ca sifaat yi bu ñu duggee ca sifaat yi dana leer moo leen di tàqale kon da nga naan siraat alladina an'amta an'amta alxaqa al arrahim arrah arrah damay wax ni xaa boo ko bëggee xam mooy nit ki su amee lu mu sentir lu neex danaan ah su amee lu mu sentir lu naqari lu muy wax ah te dañuy wax ni ax tamit eh, booy xàqandiku waaw booy xàqandiku ax xaq booy xàqandiku da xàqandikoo foofu foofu noonu xaamoo fa génn ndax mi ngi nekk ci wastal xalq mu ni addnaahu xaynul xaauha fi nga xam nag moo gën a jege fi gën a jege jege eh, ci put gi nga xam ni jëm ca gémmiñ gi wala jëm ca làmmiñ wa foofu mooy lan mooy xayn ak xaa comme ni ma ko waxee xaynun ak xaa xayn ak xaa ñoom daanaka xaw nañu dugganteeg sax eh, lii di maxaraji lisaan xaw na ñoo yegg ca laan ni ñu wax waaw ndax nag ñoo gën a jege ar ar moo tax ak yenn saa yi nga gis ku juum di ko jànge ar ar dañoo jegente donte ni mu ngi dugg ci eh, al lisaan maxaraji lisaan waaye ñun ba tey ñu ngi ci مخارج الحلق كون ادنى آه، الحلق لا فاي ген موي لان موي خو اك غين غير المغضوب غير المغ مغ غير المغ مغضوب مغضوب انا نونو غاكاي واخ غير مانا ليرال حرف بي بو باخا باخ غير مانا ليرال حرف بي بو باخا باخ لغي نك داني يمالي في درس بي ba aljuma bi di ñëw insha allah ñu agalé ko hada wa akhiru da'wana an alhamdulilahi rabil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان